laa ilaaha illallaah doom fa yàlla e, e, laa ilaaha illallaah fa laa e, fa yàlla laa ilaaha illallaah laa ilaha illallahu takkaat takkaat naan illallahu illahu allahu takk jug dem fa yàlla doom fa yàlla sar fa yàlla sax fa yàlla say fi yàlla ne fi yàlla saasu ne fu ne laa ilaha illallah faal nekk fii nekk fépp ak fu ne àdduna bi nii fi des kenn la dund la laa ilaha illallah jàng ci yow war nañoo roy ci yow war nañoo sëgg ci yow war nañoo maam talay dagaan mbaax akuk leero yar ak tegginoo maam Sow Faal yow yaa ki ci ñun fépp ci àdduna bi senegal li ngeen di wax yëpp maam a Ibra mooy dëgg ji tuuti ci moom li ngeen di wax lépp ak liy développé lépp ci maam Cheikh Ibrahima Fall bu leen ñu rey nag. maa ngi nii di jëmati fa yàlla dam fa yàlla nekk fa yàlla nekk ak yàlla ne fa yàlla di fi ne di fi nekkal yàlla ba ilaa abat waaw ñun ñooy ñu fi dul jóg ndax dañuy takk di jóg <laughs> waaw waaw waaw yàgg leen yokku leen wér leen yàgg di takk di jóg nekk fi di takk di jóg du naan jóge na fi mi ngi fi takk di jóg rek di dem.